woona la doña mbiri siyayi woona la simlaye woona la doña mbiri siyayi woona la simlaye woom naa laa doo ñëw mbiri siyaay woo laa fim laaye woo naa la doomu may muna kamaraay man de woo naa doo ñaawe woo laa doomu Mustafa jowooy man de woo laa fim laaye woo naa doomu may munu kamara gaawooy doomu Mustafa galay woowoo man de woo naa la woo woo woo waawaayi naaru Fatima simlaaye doom sa yaay mbay mbay naaru si naaru Fatima simlaaye woo naa doomu Maymuna Kamara waawaayi naaru Fatima simlaaye man de woo doomu Mustafa Jóob ci magu sëriñ gaalaay woowo taw ci yaay taw ci baay bi lay dafa ay waay ku ko am te ko ton fa yaay mbay mbay nari si yaay jiley samaam sim laaye jiley samaam jili baay basaay jili baay <laughs> jili baay basaay samaame naaru Fatima Zimlaay loolu